mi ngi waxtaan ak Macky Sall depuis 2019 man nag duma waxantu man nag gëm leen ne masu dégg ma taal di tudd ay turu Khalifa Sall Barthélemy jaas laa doon dal ci kawam ndax Khalifa Sall ba léegi maa ngi doon def li américain dina ne sama homework nee naa la depuis 2019 Khalifa ak Macky ñooy añ ñoo astafurla ñooy reer dañuy reer di waxtaan di déggoo benn affaire la Macky soxla woon ci xalifa mooy Ousmane Sonko sur le plan rek la soxla woon li ci des yëpp Macky nee na leen dina ko lijjanti même bi mu ko jàppee bi ñu jàppee Ousmane Sonko mu ne waxoon naa leen ne dina jàpp Ousmane Sonko dugal ko ci kaso bi léegi li ci des yëpp on va le entre nous léegi ñun ay doomu sénégalais yu diñ lañu ñun xam nañu faiblesse su maki Sall ndax xam nañ ne ko euh, euh, li américain dina he's a pussy maanaam tapet la ñun xam nañu loolu américain yi woon nañu yoon bi ñun dañuy toog di bàyyi maki Sall mu puub suñu kaw bopp yi ñuy ay doomu gor doomu jaam ñu koy seetaan ñu ne pat bu dee loolu ngeen fas yéene def ni leen ko Ousmane Sonko waxoon la rek takk leen seeni ay bagages dem defar seeni ay ndombo jaam te takk ne je l'esclave de Macky Sall mais boo leen bëggee dagg loolu wallahi on se lève aujourd'hui demain la fête est terminée te man loolu laa gëm mes frères de Y'en a marre arrêtez d'être politiquement correct laalu ma kenn in particulier ndax du benn nit C'est tout un mouvement. F24, arrêtez d'être politiquement correct. Les partis politiques du Sénégal, arrêtez d'être des poltrons. de yàlla moo ko yor yàlla moo yor bakkan ku mu tudd sa dee di nga dee on dit pas d'aller se sacrifier waxuma kenn nga dem génn di wax ay waxu dof pour ñu jàpp la waxuñu yónniwuñu kenn loolu mais dañu ne préparez-vous waxtaan leen ci suuf nañu manif nañu préparer ci suuf ndax bi yoon bu ñu jógee dañu war a dem palais toccottu yu Macky Sall génnee ko palais bi won ko ne bàyyam moomul Sénégal loolu mooy dëgg mais bu ñu toogee kom ay xar ay tapet ñu toog ci suñu biir kër yi di waxtaan di ngunu ngunu ah waaw Macky de jàpp na ñëpp waaw Macky de waaw de indi na réew mi pharaon li mu doon def moo raw Macky dix mille fois bëgguma woon jëlee lii sax exemple gis ngeen tey boo leen demee comme Hamas maanaam boo leen demoon tey dëkk bu mel ni Israël ngeen xool ko ak Gaza Israël dafa wër Gaza yor militaire doole militaire boo xam ne Israël man naa xeex ak mu ne mais tey Hamas bi mu jógee perturbé na Israël yëpp Israël moo tëb di dal ne on est en guerre donc ñun dañu war a am fulla am fayda am jom mënuñoo toog di seetaan Macky Sall mu jàpp sénégalais di leen tëj di leen jaay doole di leen rey di leen gaañ ngeen de pat waaw Macky de wax mu tëj la waaw Macky de wax mu dóor la waaw tàppet bu demee ba xam ne yow mi tàppet nga da lay dóor noggatukat a xam ngeen luy noggatukat mooy toujours école yéen xam ngeen li may wax boo daan jàngi école am ko xam ne mi ngi lay napp di la napp di la napp bis boo tojee cottu ndeyam est-ce que napp bi du jeex wax leen bis boo ko jàppee duma ko ba mu day est-ce que napp bi suba boo ñëwee day am du am donc nañu jël benn jour jàpp ko dajaloo ñun ñëpp ñu surpris ñu surprendre Macky Sall bu yeewu fajar fekk ñu ci buntu lalam ñuy toj ñuy daqaar ndeyam loolu mooy dëgg est-ce que bu boobaa ñoom dinañu tal ay Amadou Ba ay Amadou Diallo ak Amadou Diop mais c'est ça notre problème maa ngi préparé lu rëy déedéet déedéet naa dellu ginnaaw ndax du man maay ñu ngi préparé lu rëy que tous les Sénégalais daas fanaanal nañu préparé ñu ngi waxtaan ci suñu biir les activistes le parti politiques le mouvements citoyens ñu ngi waxtaan bis bu ñu jógee xam leen ne même bu ñu jàppee fukk ci ñun on va continuer à exécuter nañu bàyyi ay waxu grand instance petite instance gros zizi petit zizi cabinet petit caca gros caca bàyyi leen juriste yi ñoom loolu seen liggéey la bu leen leen mere ah. Laissez le juristes faire leur travail de juriste. Laissez le avocats faire le travail des avocats. Mais le, Sénég le il faut faire le travail du Sénégalais lambda. buumu njaam du dagg buumu njaam dañ koy dagg buumu njaam benn masta du ñëw takk la buumu njaam ba mu dëgër ñëw dagg ko baal naa la déedéet yow yaa koy dagg réew mu am indépendance danga ko xeex sinon doo am vraie indépendance réew mu am indépendance daf ko xeex sinon doo am vrai indépendance Sonko nee na leen du waxtu benn rongoñ déedéet du waxtu tu rongoñ lay jooy what you crying for du waxtu tuur longoñ benn xeex la ñu war a xeex et cette fois-ci billahi bu ñu génnee waruñoo dellu suñu kër yi directement au pale problème bi dafay jeex senegal quand il y a les coups la population prend ses responsabilités Mali bi mu jógee ba juróomi nit ñooy génn ñu jaay la doole dix mille personnes cent mille personnes un million de personnes bu ñu génn ku lay jaay doole sonkorisation bi ci stade yi rek gis ngeen doole bi mu am policiers yi ñemewuñu leen ak parce que xam nañ ne dii policiers vingt policiers y a mille jeunes qui son fâchés Sonko namm naa la Sonko namm naa la Sonko Sonko Sonko namm naa la Europe bi ñu jógee lan moo xew Paris gis ngeen ñaata parisien ñooy génn ci mbedd bi ñooñu kan moo leen ñemee song Amérique biñ si génnee est-ce que gis ngeen ñaata lañu kan moo ñu ñemee song dañuy négocier ñoom ñooy négocier maintenant c'est la responsabilité de sénégalais kenn ku nekk ci ñun dafa am responsabilité am taxawaay bu mu war a taxaw maa ngi ñëw encore une fois ak yéen fan yii ñu ngi waxtaan ci suñu biir dinañu jóg te bu ñu joxee coup d'envoi bi ñëpp pale de la république la ñuy dem daje amul ay layam-layame yooyu dafa jeex il faut sénégalais yi xam ne mënuñu libérer Sénégal bu ñu jógul xeex trop c'est trop benn groupe bandi jàpp réew mu otage lu leen neex def ku leen neex tëj ku leen neex tëjji Macky Sall bu respecté woon sénégalais yi dina jël suñu institution yu baax yi di ci teg ay nitam bu tegul Maham Diallo fi mu teg Siré lii fële mu teg bandi bii fële mu teg bandi bi fële tous des délinquants yëpp ay mbokkam xam ngeen ñaata mbokk la Macky am ci gouvernement Sénégal mais Macky dafa yab Sénégalais yi bu ñu demee ba mel ni Boun Abdoulaye Dionne mu ne moom candidat la Boun Abdoulaye Dionne Aly Ngouille Ndiaye ces imbéciles ces délinquants bu ñu demee Sénégal Boun Abdoulaye Dionne laa wax Boun Abdoulaye Boun Abdoulaye Dionne moom mooy toog mu ne Sénégalais yi lui